asalaamaaleykum mbokki julliti mbokki taalibe yi mbokki Touba Argentine ak li ko wër yéen a ngi jàkkaarloog seen télévision Touba Argentine TV bu ngeen gisee toogaay bi xam ne am na lu ko waral tey lan moo ko waral dañoo ñëwoon fii tey seet si njabootuk Serigne Issa Diène kan mooy Serigne Issa Diène mooy borom njenne ak la lëgën bàyyi baara jenn ak laat jenn borom xay mbayaar ñu ñëwoon fii nag seet si njabootuk Serigne Issa Diène ki ngeen gis ñu toogal mooy jëwrinu daayira bi di Serigne àll Diaw gannaaw bi ko fi Serigne Moussa Lo bàyyee mu nekk jëwrin kon duñu def lu dut jox ko kàddu yi mu nuyoo ak émission bi nga xam ne moom lañ fas yéene doxal muy nekkinu daayira yi sëñ Alla ñu ngi lay ziar. aawsu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñu jiital ci sant yàlla di julli ci yonent bi tedd bi alayhi salaatu wa salaam di sant Serigne tuuba di nuyu mbokki taalib yëpp di siyaar Serigne Seydil Mokhtar di di ko ñaanal fan gudd ànd ak wér di ñaanal Serigne Cheikh Jëmb Fall di ko ñaanal fan gudd ànd ak wér di siyaare sunu Serigne Serigne Abdoulatif Diène di ko ñaanal fan gudd ànd ak wér di siyaare mbokki jullit yëpp di siyaare mbokki taalibe yi di siyaare jëwriñu daayira bi di sëriñ Moussa nga xam ni moom daa dem Sénégal waaye moom mooy ki nga xam ni mooy jëwriñu daayira yi di rafetlu bu baax euh, waa Argentine Touba Argentine TV ci euh, liggéey bu rafet bi ngeen di def di saytu liggéeyu sëriñ tubaab bi ba fépp fu daayira nekk ci réew mi ngeen dem fa pour jëm fa taatan ay kàddu ñu ngi koy rafet bu baax seen liggéey wax dëgg yàlla ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm loolu la ñu amoon ci jot a tàmbali di déglu ba xam lan ngeen ci mën a waxaat. jërëjëf Serigne Alla ci nuyoo bu am solo boobu lee nga nuyoo ko mbokki taalibe yi émission bi li ko tax a jóg mooy émission nekkinu daayira yi fii ci Touba Argentine tey ñu ñëwoon seet si njabootuk Serigne Issa jenn li jiitu loolu daayira bi kañ ngeen ko tàmbale ak ci ndigalu kan la bàyyeekoo ba tax ngeen taxawal daayira Serigne Issa Diène fii ci Touba Argentine bisimilah sëriñ Assane xam naa laaj bi nga laaj moom dinañ am tuuti ay leeral yuñ ci mën a ci liñ ci xam daayira bi moom bi ko commencé mi ngi toll ci 2014 lañ ko lañ ko sos yàlla suñ borom dogal at ko ngi ko sosee 2014 am na benn doomu sëriñ naar jenn bu fi ñëw sëñ jiili jenn mooy ki fi jëkk a ñëw ci sëriñu jenn yi yàlla suñu borom dogal bi ko siyaaree moom tam ñu xamal ko ni ko am na de lu ñu doon taxawal fi muy daayira kër maam Cheikh Issa Diène mu encouragé ñu ci ñaanal ñu ci e, ba yàlla suñu borom dogal moom tam avant muy dem e, sëriñ Aliou Dieng mu sëñ Baara Dieng ñëw fi sëñ Aliou bi mu fi ñëwee tamit nag moom tamit e, andi na fi ay kàddu yoo xam ni yu jóge ci xalifa bi la di sëñ Abdoulatif Dieng mu wax ñu ni day sëñ Abdoulatif Dieng nee na foofee ngay dem ci Argentine de bu fekkee mat ngeen fa ñetti nit na ngeen sos daayira bi ndax mbooloo mi ngi tàmbalee ci ñetti nit. bu ngeen ko sosee daal te taxaw ci incha allahu lépp li ngeen ci bëgg di ngeen ko am loolu moo tax ñu taxawal ko 2014. kon bu ñu déggee ci say kàddu eh, daayira bi mi ngi taxawee ci kàddu ki nga xam ne mooy xalifa Serigne Issa Diène ah loolu it muy ndigal te ngeen koy jëfee ah, kon ñu fas yéene rek laaj li nga xamante ne ni moom mooy daayira bi ana nan ngeen koy doxalee fii nan la daayira bi doxee ak eh, bu ngeen dajaloo nan ngeen di. jëflantee ci seen biir. bisimilah sëñ Assane daayira bi day ni mu doxee moom daanaka di mooy daayira yu bari noonu la ñuy doxee mooy ñun comme ni ñu ko tàmmee Sénégal rek nga xam ni Sénégal moom daayira ñu ngi ko daan def tàmbale ci di def àllarba te it ku ne xam na ni àllarba jooju léegi defatuñ ko léegi li ëpp ci li ni waa daayira yi def mooy dañuy dajaloo par weer weer bu nekk ñu dajaloo bi bu nekk ñu am loo saso loo xam ni da nga koy teewal ñu dajale ko. bu ñu ko dajalee bu waxtu wa ñu jébbal ko ki fi nekkal sëñ bi euh, maanaam daal taxawaay boobu lañu ci am bi ñu dajaloo sos ko euh, sos bet mi ngi tàmbalee ci nun ñi nga xam ne nun yàlla suñu borom dogal na ñun ñoo fi jiitu woon nekk fi doon ay taalibey njenne muy ku ci mel ni jëwriñ Moussa ak man mii ak alaaji Magar Seck ak ñi ci topp ak Mbay Sàmb ñoom alsaan gaa yëpp ñu àndandoo def ko ba taxawal ko bak si fii daal foofu daal mbir mi tàmbalee kon eh, ki nga xam ne mooy Serigne Moussa Lo jëwriñ ndax sëriñ bi moom moo taamu ngeen teg ko fi wala yéen a waxtaan ci seen biir ba toftal ko ci seen kanam. barakalaaw sëriñ Assane euh, laaj boobu mën nañ cee tontu lu leer maanaam ñun bu yàlla suñu borom dogalee suñu àll yu ñëw euh, sax bi indi kàddu googu fekkan na ñun ñu organiser woon ba samp daayira bi bi euh, ndax bi nu sampee daayira bee tamit ñun moom moomu lañ jiital ni ko yow yaay njiital daayira bi. bi yàlla suñu borom dogalee moom mu nekk njiital daayira bet mu am ñu ñu tofal ci moom muy ku ci mel ni mën mii ak ku ci mel ni Mbay Sàmb ak El Hadj sekk ak Serigne Modou mii di suñu doom moom tam ci ñi nga xam ni ci nekk ci bureau bi la bokk loolu la doxee moom moo nekk président bi man maa nekk trésorier bi sekk moo nekk euh, commissaire des comptes Modou Lo moo nekk secrétaire général euh, nun daal la doxe nun daal la doxee. daayira bi ndax mën nañoo xam mbooloo mi ñaata ñaata lañ mbooloo mi. ah bisimilah sëñ Assane ah mbooloo mi de xam naa ni fi mu toll ñu ngi ko jàpp ci ni daal war na noo mat weeri nit waaw war naa toll ci liñ fi xamagun daal ci ay taalibe ñenn yoo xam ne bindu nañ ci carnet daayira bi moom buñ ko limee dina toll ci fan fanweeri nit waaw 30 person daal yaakaar naa ni moom lay war a toll. waaw ku ne xam ne jafe-jafe yi dëkk bi ak liggéey ni muy demee des fois dinay fekk ci yenn barab yoo xam ni ñëw gi du yomb waaye li ci ëpp tamit ñu ci ñëwul te xam ne am nañ groupe whatsapp boo xam ni dañ koo ubbi pour képp ku xam ni sori ngaa tamit boo munta ñëwee tamit nga lu ci ëpp dinañ rotal seen i kàddu ci groupe bi ba xamal leen ni leen ba xamal waa daayira bi ni daal nu ngi ci jama dëkk sàngam moo tax mënunoo ñëw waaye li li ma wér baal mooy li nu jàpp ni fanweeri nit yi daal xam naa jàpp na ni ñëpp ñu ngi ci biir daayira bi ci biir fanweeri nit yooyu ndax yéen a ngi jàppalante ci seen biir. Ah, waaw tabarakallah macha allah parce que ñu ngi jàppalante ndax eh, ñi ci bokk ci daayira bi ñëpp amu ci kenn koo xam ni eh, umpale nga li nekk ci solos daayira ndax solos dayre bu ñu gëstoo ci li nga xam ne sëñ Cheikh Mbacke eh, defan na ko mi ngi takku ci nemmikonte daa taalibe yi xamante di nemmikonte ba képp ku ci am jafe-jafe say mbokk taal bi mën xam ni am nga jafe-jafe bu ko defee ñu mën caa taxaw pour saafara loola loolaa tamit nag ñu ngi ci loolu lan tënku ndax kii dut ñëw daayira te bokk ci njabootuk Serigne Issa Diène toog ci këram ndax bu yàlla dogalee ba mu am jafe-jafe yow mi jëwriñ ji ndax danga jël responsable ngir dimbale ko. ah tabarakallah waaw loolu kay lu mën a nekk la ndax euh, suñu borom moom mi nga xam ni subhaanahu wa taala moom moo bind nit moom yemalewul te euh, nit ñàkk a ñëw daayira euh, teewul mu doon ab taalibe euh, loolu du tee ab taalibe moom daanaka ni bu jógee di jëf warul di xool ci kii day ñëw ak kii du ñëwul sax moom daanaka ni jëfam daa war a maase ci képp koo xam ne laañ nga ndimma rek dañoo war a taxaw ci dimbali la incha allah te euh, édition boobu xam naa ni nun ñëpp seq daayira bi néppit kenn ku ci nekk xam naa ni moom mm, xalaat boobu moo nekk ci yow te xam naa ni pas-pas boobu moo nekk ci yow ndax kenn ku nekk ci nun dara ñoru la du liggéeyal Serigne Touba liggéeyal Serigne Touba liggéeyal Cheikh Issa te liggéeyal Serigne Touba nag dara jiituwu ci jàppale doomu aadama jàppale doomu aadama jàppale sa mbokkum taalibe loolu ci la tënk nun ñëpp te loolu gaa yi ñu ngi koy doxal bu baax farka la waaw ndax gis na ne tey jii nit bu nekkee eh, taalibe Serigne Issa Diène du ñëw daayira ba yàlla dogal mu am jafe-jafe lu toll nii maanaam som bi ñu ko war dimbalee tolloo ko seen keesu daayira gi ndax eh, yoon may na la nga yëkkati keesu daayira gi def ko ca eh, jafe-jafeem yooyu waaw euh, maanaam kopp koo xam ne ci da bokk ci daayira bi yàlla suñu borom ñaanaluñ ko kenn nattu dal la boo xam ne dangay ngay laaj dimbali itam ñun mënuñoo jël ni danañ jël keesu daayira gi jox la ko waaye ku xam sëñ bi xam ni lépp lu bépp taalibe euh, ku xam sëñ bi xam ne am am na taalibe bu nekk fii boo xam ne dafa yitte woon ndimbal lool lool lool li ma mën a wér mooy ku jël kees gi jox boo ko waxee sëñ bi dina ko rafet lool te jàpp naa ni sax yàlla mën naa dogal du yegg foofu ndax mbooloo mi takku nañu takk goo xam ni ci jàppalante ak dimbalante ba yaakaar naa ni maradaytaal yàlla na waaye bu loolu am ni tamit ni danañ ko dimbali te du jar nuy jël kees gi ni war a jox sëñ bi di ko joxe loolu moom yaakaar naa ko jërëjëf Serigne Alla ci laaj yu am solo yi li nga xam ne tey ñu ngi fii ci njabootuk Serigne Issa Dienne comme ni ñu leen ko waxee sànq ah, ndax Serigne Alla kañ nga ñëw ci dëkk bi ah man nag dëkk bi sëñ góor a taxul ma yàgg fi noonu ndax maa ngi fi ñëw euh, daanaka ni depuis 2012 fin 2011 daal laa fi ñëw daanaka nii ni 2012 daal 2012 waaw laa fi ñëw yàgguma fi noonu daal hmm, taxul ma def yenn temps yi nag. <laughs> li nga xam ne mooy daayira Serigne Issa Dienne li tax ñu toftal la ci jëwrin ji ndax yaa buuxante ba ñu teg la fa wala mbooloo mi ñoo la fa bàyyi. ah déet sëñ Assane wax dëgg yàlla hmm, yàlla suñu borom rek da laay waxal man day sax man damay wax toujours ni man mbooloo nekk ci ginnaaw moo ma gënal waaye nag eh, xëy na rek nattu la bu ma yàlla suñu borom teg waaye day du lu ma sàkku ci ñoom xëy na ñoom it ñoo xool ba xam ni lii rek xëy na danañ ma ko dénk ni xëy na mën na maa liggéey sëriñ bi foofu ñu teg ma foofu waaye du loo xam ne man maa ko sàkku ci ñoom wala man maa ko laaj wala loolu wax dëgg yàlla loolu moom kiw ma ko daal kon daal mbooloo mi ñoom ñoo waxtaan ba déggoo ci seen biir toftal la ci li nga xam ne moom mooy jëwriñ ji kon du ñu def lu dul jox ki nga xam ne mooy parte parole daayira bi kàddu gi ñu fas yéene waxtaan ak moom laaj ko ay laaj ci biir daayira sëriñ Issa Diène bi jëwriñ ñu ngi lay ziar. Ah, asalaamaaleykum jërëjëf sëriñ Assane ah fi nga tàmbalee foofu nga war a tàmbalee ndax booy dugg ci kër da ngay tàmbalee ci bunt ba. ah ñoo ngi leen di ñaanal yàlla yéen it yéen waa Touba TV Argentine ci njiital sëñ a Seck ak sëñ Assane Baye Fall ñoo ngi leen di ñaanal yàlla yàlla defal leen jàmm ndax yéen it wax dëgg yàlla yéen a ngi bay seen waar ci tool bi ndax nit ki fépp fu mu nekk fu ne war na fa lay jëmmal jataay ba di jëmmal fa ñu nekk ba nga xamante ne fépp fu waay nekk ci monde bi waxuma la Argentine waxuma Sénégal mais fépp fu waay nekk ci àdduna bi yaa ngi seetaan Touba Argentine ah te loolu yëpp ci njàmbaaru seenu njàmbaar la ak seenu góor góorlu ak bëgg lu baax ak bëgg a tasaare ndax jamono ko laaj danoo toll foo xamante ni bi ni fokk lépp loo xamante ni bi ni ñu ngi koy def fi mu nekk nii ci àdduna mbir mu mel nii am ca kon yéen bala maa tàmbali di wax leen dama leen di ñaanal yàlla yàlla defal leen jàmm yokk seeni xéewal a ah, la ngeen bëgg yéen a ko xam yàlla na leen ko yàlla defal ba mu doon ab tele doonub rajo àdduna bi yëpp di ko seetaan a ah, ginnaaw loolu nag ñoo ngi jéggulu di nuyu di jiital ci suñu nuyoo sëriñ Cheikh Sidi Muxtaar di nuyu sëriñ Abdoulatif Jenn xalifab seex Issa Jenn ak mboolem waa kër Cheikh Issa jenn ak mboolem seex yi nga xamante ne bii ñoo bokk ci kër Cheikh Issa Diène ndax kër Cheikh isaa bari nay seex lool ah rawatina nag fa ma bokk man di kër Cheikh Moussa Soxna gay bari kër sëñ Mbacke Ka maa ngi ziyaare bépp taalibe boo xamante ne bii nii yaa ngi nuy dégg wala bépp taalibe boo xamante ne yaa ngi fii ci Touba Argentine ci njiital président daayira bi ndax bu ma ko tuddee rek tudd nañu waa dayre bi yëpp sëriñ Moussa yàlla daa dogal moom mu dem senegal ah waxtaan wi fekk ko fi waaye moom it doon ku am pasteef doon tamit nit ku yiw doon nit ku baax doon ku mat njiit ndax njiit da yaatu ginnaaw te loolu yàlla def na ko ci moom moom ñii topp ci moom di sëñ Aliou àlla Diop ak sëriñ Modou ak. Euh, sëriñ Maguette sekk ak Mbay Sàmb ak mboolem ñi nga xamante ne bii ni daal kulim da ngay juum sañ Alsaan Jaw ñoom ñëpp ñu ngi fi teew ak mboolem ñi ngeen di gis ñëpp ñu bokk ci daayira bi ak ñu yàlla def ah, ñu jotoon a ñëw te génn avant kii bi di ñëw ak ñi jotul woon a ñëw ñoo ngi siyaare ñëpp nag di leen ñaanal yàlla jàmm di ñaanit yàlla yokk seen jàmm ah ci baat lépp luñ fi wax nag ci ndigalal sëñ Moussa lañ ko waxee ak ci ndigalal sëñ Alla Diop ndax wax dëgg yàlla lépp loo xamante ni bii nii war na ci daayira bi xooluñu ko man xooluñu ko mënut xooluñu ku ñëw xooluñu ko ñëwut te it loolu la sëñ Abdoulaat waxoon sëñ Abdoulaat danoon jëwriñ cib tool day xëy jaar ca yoon wa ni maa ngi dem boo xëyee jaar ci yoon wi maa ngi dem boo gëstoo gis ku topp ci sa ginnaaw ñoom nag xëy nu naan kenn demal ñoom dañuy jiitu képp ku ñëw topp ci seen ginnaaw bu ñu gëstoo gis mbooloo mi ci seen ginnaaw mbooloo mi wax dëgg yàlla jàmbaar lañu ñu ngi nab na bi kenn ku nekk li nga man yaa ngi koy jéem kon nag ah maa ngi jégalu bu baax a baax a baax a baax sëñ Assane ah xam naa kàddu yu sax xaw naa gudd waaye maa ngi jégalu. waaw jërëjëfati jëwrin ci kàddu yu am solo yi nga xam ne yëkkati nga ko ci kanamu mbooloo mi kon du ñu def lu dul commencé rek waxtaan ak porte-parole daayira bi ndax euh, comme ni ñu koy waxee rek émission bi li ko tax a jóg mooy nekkinu daayira yi fii ci Touba Argentine li ci ëpp solo it mooy njëriñu daayra ndax boo xoolee am na ku tëdd këram xamut lan la daayiray doxe xamut lan mooy sarti daayra kon bu ñu sañoon tey nga leeralal ñu lan mooy sarti daayira li jiitu ah jërëjëf sëñ daayira daanañ ko wax ca Sénégal daayira bu ma bokkoon daanañ wax naan teg ak teew ñaar yooyu moo yore daayira teg mooy ci maanaam ki nga xamante ni bii bu teew bu bu day teew bu ñu wootee bisub daayira bi mu teew indaale la nga xamante ni bii ni mooy àddiya am indaale ko ca bisub daayira ñooñu ñooy doxal daayira bi ah comme ni ma ko waxee woon nag boo ki nga euh, comme que ki ñu jiite bu ñu dee laaj balaa kenn génne moom sëñ àll mii balaa léegi bi nu accès balaa kenn di génne li nga yor moom day daal di génne li mu am joxe ko ah xaj na nag am na aw sas woo xamante ne bii ni moom la ñuy laajte waaye tamit ah xam na ni doole yamut te ah mbooloo dañoo wax ni a jamaatu rahmatun mbooloo mooy yërmande te bu ñu àndee mbooloo bu ñu àndee ni yàlla bindee doomu aadama yi rek ñii gudd ñii gàtt ñii ñuul ñii xees noonu la mbooloo mi demee doole yi di tolloo te it yoonu murit sax moom noonu la baaxoo kenn ku ci nekk rek dangay ngay daal di jëf fa sa mbagg toll ak fa sa yéene toll ah kon euh, lii gën nga xamante ne bii daal mooy doxal daayira muy daayira bii muy baneen daayira bu mu mën a doon muy dox mooy di teg tey teew loolu daal sëñ Assane bu nu ko sàlloo a ah, yaakaar naa ni la sëñ Abdou Lahat noonu ba am murit fu mu mën a nekk doon fa kenn ak doon fa ñaar ak doon fa junne war a yam fu nu nekk rek war na ñoo xam ne ay murit a nga fa loolu nag a ah, waa daayira Seex Isaa Jend bi ñoom ñu ngi ci ndax biñ fi nekkee booba mbooloo mi melul nii ñii fi nekk nii muy sëñ Moussa Lo ñoom ak sëñ Alla ñoom ñii fi ñii fi njiitu dañoo daal di ñëw daal di sos daayira bi ah bi ñëwee ñun ñii man mille quinze laa fi ñëw ci fin bi 2016 sax mais bi ma ñëwee dañoo daal di topp seen ginnaaw ah loolu nag mooy doxal ndax ki jiitu toujours daa war a jiitu ñi topp ci ginnaaw danoo war a ñëw topp ci moom kon nag ah sëñ Assane man daal ni ma gisee daayira daal li koy doxal mooy teg ak teew te sëñ Abdou te sëñ dani inni xadimun ay sunu oqimu wala ari musalo ci saa yi képp koo xamante ni bii ni yaa ngi bëgg a jóg di def lu baax te def lu baax rek tax laa jóg doo déglu koo xamante ni bii dalay ŋàññi moom de ba muy liggéeyal boroomam jóg ngir liggéeyal yàlla loo baat boobu la daal di sàlloo moom dañuy inni xadimun ay sunu oqimu man daal maa ngi liggéeyal njool màkka fépp fu ma mën a taxaw waaye nag du ma ci faale koo xamante ni damay ŋàññi waaw ñoom ñii nag loolu lañ sàlloo lépp lu am joxe ku joxe xooluñu ku joxewul xooluñu ku ñëw xooluñu ku ñëwul ah ñoo ngi ñaan yàlla tamit képp bépp taalibe boo xamante ne bi ni bokk nga ci kër Cheikh Issa Diène te nekk fii ci Touba Argentine ak foo mën a nekk lu mu ruqee ruqee ruqee nga génn te fas yéene ñëw ci daayira bi ndax nag lu am solo la te it kenn ku ne xam na ni sëñ Cheikh Mbacke mi ko sos ah daayira munta ñàkk ci man ci ni ma ko gisee daayira moom mun ta ñàkk waaw mun a ñàkk daayira moom doonul loo xamante ne bi daa mën a ñàkk ah kon bépp daayira boo xamante ne bi ni mi ngi fii ci Argentine képp kenn ku nekk am nga côté boo xamante ne bi ni fa nga jokk na nga jàpp fa nga nekk muy ca daayira Baay Faal képp ku di Baay Faal te nekk Argentine na nga fexee gisanteeg ña yore daayira ba ba bokk ca daayira ba dara gënta wóora di nekk doonub taalube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 ak sa jërëjëfati jëwrin ci kàddu yi nga xam ne yëkkati nga ko fii muy kàddu yi am solo ah, ñi ngi dégg léegi ci sa biir biiri kàddu nga ne daayira li ko yor mooy eh, teel ak eh, teg ak teew eh, waaw ndax mën nañoo xam ci diggante teg ak teew boobu noonu loolu lan mooy lan mooy sababu baatin bi ndax boo xoolee tey eh, am na ñu nekk fii tey Touba Argentine du ñu ñëw tey daayra ki nga xamante ne nii moom mooy ñëw ci biir teg boobu ak teel boobu noonu moom lan maanaam eh, lan mooy njëriñu teg ak teew lan mooy njëriñu teg ak teew. ah jërëjëf sëñ Assane ñoo ngi lay ñaanal yàlla jàmm ndax laaj yi am na solo euh, lii nga laaj am na solo trop. loolu nag daanaka bu ñu neexan sax duñ ci nekk di wax teg ak teew moom kenn ku ne xam na ni fu kenn teewut dara mënu faa taxaw te it kenn ku ne xam na ni liy doxal jamono fi mu nekk nii mooy mbirum tuut soosu nga xamante ne bi ni muy koppar si nga xamante ne bi ni moom la ñuy fopp di ko fi teg ndax lu mu tuuti tuuti tuuti ak nu mu mën a toll rek ah wax dëgg yàlla ñoo ngi koy ñoo ngi ci góor góorlu di fexe ba at mu jot ñoom ñi ko jiite yóbbu ko ca xalifa Cheikh Issa Diène bi fi nekkal Cheikh Issa képp ku fi nekkal Cheikh Issa jenn ñu yóbbu ko ci moom at mu jot mu nekk te kenn ku ne xam na ne loolu bu ñu ko fi doonul woon teg di fi teew di ko fi teg du fi nekk bu ñu doonul woon teew di ko fi teg kon dara du fi nekk kon ah noonu nga ko waxee woon rek ku wéeruwul ci dara lu mu mën a doon day am fu mu tegee ku lu wéeruwul daal daal di yomb ba ma kon képp koo xamante ne bi yaa nga ci sa kër wala nga nekk ci sa roq naa gaa yaa ngi doxal daayira ah, bu ñëpp meloon ni yow yow mu toog sa kër day dara dara du dem te it ah, war nañoo man a tegtaloo nag ci daayira bu mag bi nga xamante ne bi moo booleem mboolem buum gi nga xamante ne bi ni moo nekk Argentine mboolem képp ku di taalibe murit te nekk Argentine daayira bu mag bi nga xamante ne bi moo fi nekk war nañ cee mën a tegtaloo mbokki taalibe yi ñuy seetaan comme niñ leen koy faral di waxee rek yéen a ngi jàkkaarloog seen télévision Touba Argentine TV bi leen nekkal fii ci Argentine ah, tey ñu ñëwoon fii seet si njabootuk sëriñ Issa jenn eh, doon waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne mooy nekkinu daayira yi ah, tey nag ñu ñëwoon fi waxtaan fii waxtaan wu am solo xëy na kon waxtu wi mi ngi ñuy bëgg a xoj kon du ñu def lu dul di tàggatoog mbooloo mi ah, di leen wax ne mbokki julliti mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa